tool bii mi ngi nekk ci dëkk bi ñuy wax gàddaay nekk ci departement bu Kër masaar ci xàll wi lañu fekk Omar Bodian di baykat mu soobu ci mbayum blé bi ñu fi ñëwee nag waxtaan nañu ak moom ci mbayum pepp gi doon lu njëkk ci réewum senegal jaar-jaaram ay pexe yi mu tëral ba ci ay jafe-jafe yi mu jànkuwanteel ba am yi leen njeexital ci mbayum blé bi lépp waxtaanee nañu ko. bu ñu expérimenté fii pour xool ndax est-ce que mën nañoo bay fii blé fii ci Kër Massar fii ci Sénégal particulièrement ak Kër Massar. voilà léegi nag li nga gis ni samay loxo euh, graine blé bi béy nañ ko depuis état kii nañ ko commencé état. décembre depuis décembre. décembre le 23 décembre c'est des semis de du 23 décembre. voilà après quelques mois ñu am résultat yii ni nga gis ni samay loxo mooy blé kon ce qui veut dire que ici c'est bien possible ah ñu béy fi blé. léppaa ngi dooree ci suuf si mu deqi ba mu mën a dundal njiwum blé bi déjà mu ngi ci 45e bi comme ni ko wolof Njaay di waxee dara xëyul rekk sotti. suuf bi nga gis fii mooy nekk suuf bi nga xamante ne fokk yow nga euh, fertiliser ko pour nga mën a mën a ko jox mu delloo la suuf bi liggéey nañ ci ay at. pour que suuf bi mun na nekk mën a nekk suuf bu opérationnel suuf bi nga xamante ne euh, mën nga koo jox ji mu delloo la ci anam yi nga xamante ne c'est difficile parce que suñu napp bi mënuñu jox ndox bu baax parce que gis ngeen jege nañu géej euh, ndox xorom lañ fi am donc ñun ñoo am euh, patience aussi am lu ñu mën a développer jëli ndox ci biir dëkk bi jëli ndox ci biir dëkk bi indi ko arrosé ko suñu gàncax pour suñu gàncax mën a am développement bi gën donc boo xoolee irigation yu ñu leen woon fële yooyu la ñu irrigué def ko ci mbalka yi mbalka yi foofu la ñuy tonnee di arrosé suñu gàncax waaw ah, ci noonu c'était c'est un investissement lourd bi nga xamante ne ci cadre association bi la ñu ko amee n'est-ce pas euh, et que l'AICS mooy l'agence de développement euh, italienne moo ñu ko baaxee. ndox doon itam lu mënta ñàkk ci lépp luy dund. Omar Bodian xam lu ni mel moo tax mu waajal boppam daal di defar bile bassin ngir bañ a am benn jafe-jafe. donte sax nemeeku nañu ne blé bi soxlawul ndox mu bari. fii neexoon na trop euh, parce que ñu encouragé en fait. Euh, technicien yi bu ñu ñëwee ñu ne ñu semaine mais ñun dañu ko ji trois jours après mu commencé gënn quatre jours yëpp gën na moo tax vraiment euh, gars yi dañ ci sawar trop ñu ne ñu mën ngeen arrosé ñaari fan nit ñi di arrosé bës bu nekk ñaari fan par semaine mais nit ñi di arrosé bës bu nekk ba mu ñor voilà donc euh, arrosé nañu deux mois mu mat fi nga xamante ne war nañu mën a wàññi ndox bi ñu wàññi ndox bi deux semaines ñu bàyyi ko deux semaines mais bon en fait euh, bi ñu ko waree góob ak tey yàgg na waroon nañu ko góob balaa ñu ñu woori parce que le 23 décembre lañ ko ci euh, lañ ko ji normalement 23 janvier 23 février le 20 mars waroon nañu ko góob mbayum blé bi doon lu njëkk ci Sénégal lépp rekk doon saytu ndax mën naa nekk fi ci réew mi. lii di ab programme bu bawoo ci nguurug Macky Sall jaaree ko ci jëwriñ bi ñu denkoon lépp lu jëm ci wàllu mbay mi di Aly Ngouille Ndiaye. li mu si jublu woon nag mooy fexe bay dundee te bàyyi jéggaane bi. dañu doon wax ni Ndakaaru amul béykat dañu doon wax ni blé mënul am gëstukat yi ak techniciens yi yëpp wan leen ni mën naa ne biñ koy essayé fële ba ñëw fi variété bi fi nekk tey moo nekk ci zone gàddaay bi c'est la variété Misra qui nous est venue de l'Égypte euh, fertiliser ko ak euh, du ferme du du bio boole ko ak euh, du du triple quinze et de l'urée donc euh, kii semis bi bala bala ñor ne ak ñu doon récolté mooy semis ñi semi woon au mois de au mois de décembre parce que blé. c'est un peu le contraire du riz riz day laaj ndox moom nag boo ko arrosé un minimum même quatorze fois mu dem c'est deux fois par semaine pendant trois mois variété bi trois mois lay durée donc euh, bi ñu bi ñu ko jiyee préparer sol bi indi ci amendement yi war bon ñu commencé ko ñu commencé ko ji de procédé manuel parce que amuñu cet espace bi rëy rëy boo xam ne di nga mën a utiliser yeneen donc euh, biñ ko jiyee mu am levée bu rafet mu ñuy dem am na côté boo xam ne nag dafa xaw weex on n'a pas eu observé très weex na donc euh, am na boor boo xam ni ji ko def ko sarclobinage ñaar yoon dem ci fertilisant yi ñëw fertilisant yi ñëw ñu toll ba étape bii mi ngi toll étape étape euh, étape épiaison bële mi ngi toll ci étape montaison montaison épiaison donc euh, bii moom di ko dese rek mooy cycle mot ñu góob ko bële bële cycle mot na moom la ñu commencé récolter bii nga gis ni étape étape boobu la toll étape montaison moy bii épiaison mooy bii kon munuñu lu dul c'est des paysans qui ont respecté beaucoup cette technique, les, les, les paysans qu'on a trouvés dans, leur, dans la zone avec euh, Bodian. Avec Bodian. Bon, certes, ñoom seeni i seen problème yu seen détails yu sew yi am ñoom dinañ ñu ko expliquer parce que détail bu nekk toll bu ñàkk toujours ay détails ni ko bëggoon mu am à cent pour cent am na zone boo xam ne suuf si dafa weex ndox mi dafa xaw weex tuuti donc on est en de voir procéder à ce que l'année, toute l'année, nous pouvons connaître parce que n'oublions pas, on a vers les 800 000 de blé donc le pays a besoin. Annuellement, nous avons jégani. Puis réew buy dem di jéggaani la muy la ñuy lekk jëm kanamam des na donc ci cadre boobu la la nguur gi ñëw nañu à travers le ministère développement rural et la direction départementale, la direction régionale, monsieur Mbeng, ak euh, monsieur M. Diata, qui est le responsable euh, départemental. Nous procédons au recensement, ensuite aux mesures des parcelles, ensuite au, semis, au, au préparer sol, parce que des la préparation, nous préparons sol, donc on doit semis. Après les semis, il y a eu une très bonne levée pour dans certaines zones. bile saytu nag ñu tàmbalee ko ci région bu Dakar li ñu fi gis nag mooy blé bi mën nañu ko fee bayee bu fekkente ne jëfandikoo nañu variété bi ñuy woowee MISRA 1 ci programme ministère de l' agriculture mooy fexe ba baykat yi def ko ci seen yitte. les paysans ont été très patients ils étaient donc qui si c' était c' était une sorte d' qu'ils ont fait pour voir comment on cultive le blé ñoom seen bopp. ils nous ont demandé ñu may leen ñu xool nawet bi est-ce que par exemple c'est pas possible ils vont faire des essais dans certains on va faire des essais dans certains coins xool est-ce que mënuñu ko am ci biir nawet bi biir nawet bi xëy na dina dina am fraîcheur parce que tempérament fii on a la mer à côté donc tempérament bi moo indi le climat est beaucoup plus favorable que certains parce que le programme est étalé sur 13 régions par quatorze régions la Sénégal mais treize lañ jël parce que Diourbel il fait excessivement chaud moo tax mënuñu ko fa def donc et la zone des Niayes de Saint-Louis allant de Saint-Louis à Dakar jusqu'à jusqu'à peut le sud est une zone très propice pour cette culture donc ce qui veut dire que la Dakar est très propice à cette culture donc on va essayer de voir nan la ñuy def ba mun ko dugal ci habitude de culture yi boo leen xoolee kii blé la salade baa ngi à côté soble baa ngi nële donc euh, poivron baa ngi nële donc ci biir benn benn jataay bi rek mun nañ fa def plusieurs variétés ci ñoom ñi nekkee côté bi parce que on connaît la zone des Niayes mbéyum dër bi moo fi gën a bari kon bu ñu ñëwee dukk ko ci dugal ñi xoolaale naka lañ koy demee bu mun ko développer ba mu dugg seen habitude donc ils ont ils ont cette habitude là donc habitude bu bees bu ñëwee day indi toujours tuuti jaaxle ci béykat bi mais won nañ leen ni jaaxle jaru ko te ñoom tamit ils ont vu ils ont vu ah que vraiment lii day la ñu doon wax fu ne blé mënul am Sénégal lii loolu loolu nekkul donc ça c'est le premier l'histoire retiendra le, le dernier né des départements dans sa première année de service au niveau du développement rural vient de produire le premier blé du pays mbayum blé bi mën naa doon luy gën a yombal dund gi fii ci senegal ndax ay ñam yu bari yu askan wi di jëfandikoo bés bu yàlla sàkk ci blé bi lañu koy defaree jàppale baykat yi dina doon lu ci am solo lool daanaka boo gisee nit ñi nu ñu bëggee mburu am na leen yeneen yi nga xamante ne pâtisserie yi yëpp ci blé lay lay lay lay lay donc normalement bu fekkente ni blé bi am nañu autosuffisance am na lu ñuy xaar ci autosuffisance sax war nañ ko mën a yokk ci quantité bu ñu war a soxla naturellement euh, bu yombee bu yombee euh, pourquoi pas euh, ñu koy lekk ci ngoon parce que pâtisserie nit ñi pratiquement am na ci ñi nga xamante ni ñi am moyens yi loolu lañuy ñuy reere en lieu place du riz. yàlla marché kii la yàlla minuterie yi mi ngi fii marché yaa ngi fii lépp mi ngi fii pour qu'on puisse aller vers l'autosuffisance mais nag waxaale encore askan bi ñu mun a utiliser suñu propre yëf pour ñii tamit mun a suqaleku mbay mi mbay bu lay mun a suqaleku leneen mun a suqaleku parce que boo buggee mburu nga ñëw ni nga soxla couscous marocain nga boo amee xew wala leneen ah wala wala ay ay mu xam saak yooyu yooyu yëpp te fii la jóge te bokke na ñoom lii ñu tàmbali nii bu ñu ko wéyee ah yaakaar naa ni sama xalaat néew en tout cas norme technique yi du ñu wax ni respecté nañ ko à cent pour cent mais à quatre-vingt-dix pour cent gis nañ ni vraiment respecté nañ ko yoon wi Omar Bodian daal di jaar ba yegg ci fii tey bëri na lool ay jam-jam yu ci am bu weesoo ndimbal gi war a bawoo ci nguur gi moom ak i moroomam ci tiitaange lañu dëkk ndax seen tool yi nga xamante ne bés bu yàlla sàkk ñuy gis ay nit yu koy jël jox ko ay privé ngir ñu jëfandikoo ko ci yeneen i anam jël nañu ci anam yi nga xamante ne respecté wuñu suñu droit fii nit ñi ñu ngi liggéey mais nit ñi ñu ngi liggéey la peur au ventre nit ñi ci ragal la ñu nekk di liggéeyee te loolu tamit baaxul te loolu ce n'est pas servir le peuple seeni bopp lañ fi nekkal ñu jël seeni doole ñu def mais respecté wuñu suñu droit donc mu des ñi nga xamante ne dañ leen jaay doole mais le peuple lui-même le département de Kermassar en, part, euh, en particulier, la commune de Yumbel e les autres communes, les autres arrondissements, am nañu ci cër parce que ñun ci ay titre d'état la ñu nekk ci ay titre d'état la ñu nekk bu ñu ko nangoo suñu loxo comme suñu yeneen naataangoo nu ñu ko nangoo seeni loxo joxe ko ci anam yi nga xamante ne respecté wuñu suñu droit seeni droit ñun dañ ko naxarlu dañ ko naxarlu ba fi naxar yem euh, maanaam fii la procédure d'expropriation la contrainte la ñu imposé nit ñi maanaam tey boo jéemee sa bañ ñu taxaw préfet loo ci mën préfet mën na def lu ko neex dara du ko ci fekk mais jël ko di ko jof benn sa morom privé loolu yaakaar nañu dina yem fii ñu bàyyi ñu suuf bi ñu ta ñu dimbali ñu mën a am wéeruwaay tembe pare nañu pour liggéey ble fépp fi nga xamante ne ci Sénégal parce que identifier nañu ay zones yi nga xamante ne tey ñun bu ñu bàyyee suuf bi daar daar daar daar daar banques yi dinañu dimbale te dinañu mën a béy li ëpp 1000 hectares Sédhiou mën nañu béy 1000 hectares Ziguinchor mën nañu béy lu ëpp 1000 hectares dans la zone du Fouta. parce que am na ay zones yi nga xamante ne dañ koo aménager foofu par la SAED ba pare exploité wu yëpp état mën nañu fa baaxee am nañu wéeruwaay ñun mën nañu jënd suñu matériel yëpp ñu dem installer liggéey te loolu daf ñuy gën a may doole. bu fekkente ne beneen aménagement moo fi mën a ci ñun tamit mën nañu ko proposer am na yeneen études yi nga xamante ne préparé woon nañu ko sax. mais egagul mais yaa am nañu yaakaar fii ba weer dinañu ko dinañu ko eggali maa ko initier sama bopp maa ko initier pour ñu mën a def une proposition parce que fii bu ñu ko déclassé ci biir déclassement bi war na nekk une zone d'aménagement concerté mais pour pourquoi du ñu boole ci concertation bi ñuy def ay lotissement administratif lu ñuy déclarer ak lu ñuy def dafa bokkul nan la nit di moomee li nit nekk di jëriñu te ki fa nekk di njëriñoo xamut kan la mosu ko luwe mu jëkki-jëkki rek utilise la force publique dal ci kaw loolu am nañu yaakaar ni ki jeex na ci réew mi yile xeetu jafe-jafe ñu koy jànkuwanteel fii ci diwaanu gàddaay ci département bu Kër masaar doon lu mën a rey mbay mi fii ci diwaan bi donte gis nañu ne doon na ab bërëb bu baax ngir mën fee bayee nii di blé. ñoom baykat yi di ci sàkku taxawaayu nguur gu bees gii lu gaaw a gaaw a gaaw la bëgg ci le nouveau gouvernement d' autant plus que le nouveau gouvernement ñoom i seeni programme le blé dafa nekk seen i priorité l' agriculture dafa nekk seen i priorité ñuy profiter euh, def un appel pressant au ministre euh, Mahouba Diagne mu ci euh, def ay jéego pour que l' activité mu nekk opérationnelle au plus vite ñu koy ñaax mu jàppale ñu avec le service de l' de de de de de ñu bàyyi ñu ko mu nekk un pôle de test et d'expérimentation de tout ce dont on a besoin pour euh, mën a ko expérimenter au niveau des des des universités mais aussi ñu bàyyi ñu ko à notre pour ñu mën a am des garanties bancaires qui nous permettent d'investir tout de suite dans les zones qu'on a identifier comme la zone de CFA à Sédhiou comme la zone de la vallée de Boutoupa Kamarakunda dans le Nyassia. Et, et éventuellement, euh, s'il y a des pistes au niveau euh, de la vallée du fleuve, pour que ci nous immédiatement, avec nos propres moyens, parce que nous voulons agir avec les banques, je pense que c'est plus rapide. Euh, nous, ce dont on a, besoin, nous, nous Euh, comment encore état bi du ñu subventionné wala état bi du ñu financé wala état bi encadré suñu financement bu ñu amee suuf bi rek am nañu toutes les garanties pour être opérationnel. donc euh, nous nu pensons que nous avons un levier opérationnel et que il suffit que le gouvernement nous accepte ñu bàyyi ñu suuf bi. au plus rapidement possible les banques von nous accompagner ñu def le le le ñu ñu commencer le travail pour le matériel bu ñu bàyyee suuf bi ñun mën nañu am le matériel que ce soit la banque agricole que ce soit la banque islamique que ce soit en tout cas bu ñu bàyyee suuf bi ñu bàyyi cakat cakatee yi ñu nekk di di di di di def di laaj yara suuf wallaay on sera opérationnel dès cet hivernage là on sera opérationnel. ndax béréb bi fariñ manqué na buñ mënee bay béréb. mu ñu indi fariñ ci réew mi kooku seen intérêt la ah ah jëriñoo réew mi la kon nag yàlla na ko yàlla jëlee kanam rek ah bàyyi naa sëñ Fallou ak maam Cheikh Ibra Fall yàlla na ngeen barkeel fi ngeen sunu mission mooy lan gunge leen ba woon leen ni la ñuy waxoon la gëstu woon gëstukat yi gëstu ko ñu génne ko ñu indil leen ko. parce que variété bi ñu am jiw bi moo loon parce que on avait que 2000 tonnes je pense que 2000 tonnes yi mënul doy Sénégal yëpp comme jiw donc dañu obligé jëli beneen variété on a six variété actuellement à l'essai au Sénégal. direction régionale du développement rural bu région bu Dakar naru cee des gannaaw benn yoon taxawaayam bu njëkk mooy fexe ba baykat yi jot ci jiw gi te duñ ci fay dara. cette semence est gratuite. l'unique problème. moo nekkoon les engrais sont subventionnés les engrais sont subventionnés am na saaku bio bi ak liquide bi c'était à 2000 saaku bio bi gars yi doon jëndee 15000 tu payes ça moins cher l'engrais est subventionné on a eu à quarante 44 tonnes dans le département quatre tonnes d'engrais dans le département donc euh, moom lañ moom lañ jot en urée en en triple quinze plus les semences on en a distribué parce que ñun bi ñu ko defee on en a distribué jusqu'à Dakar boo demee Patte d'Oie vous trouvez les plus les, les six variétés qu'on a essayé qu'on a mis en test. mbayum blé bi fi mu toll nii tey mën naa nekk fii ci Sénégal ñi seen xel màcc ci wàll wi gis nañu ab yoon gu ñu mën a jaar ngir lii mën a antu test bu njëkk bi wone na ni léegi moom mën nañoo sukkandiku ci blé bi ñuy bayee fii ci réew mi ngir mën cee dunde wante lépp rekk dafay tàmbali ci taxawaayu nguur gi ngir baykat yi am suuf su doy wante itam kilifa yi dugal ci seen loxo.